kenn ci ñoom warul mucc ci justice bu Sénégal bu yoon defee yoonam ginnaaw mbale mu rëy mi nga xamante ne président Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko ci justice bu Sénégal daal di bale ñu bon ñi fi nekkaloon Macky Sall ak seen bopp kese. Ibrahima Bakhoum ma Diouf Mamadou Seck Maham Diallo Abdou Karim Diop ñoo ñëpp tëb nañu. kon nag li des mooy Ismaïla Madior Fall. Antoine Félix Diom ak général Moussa Fall Mambay Niam Niang Pape Malick Ndour ñi nga xam dañ fi nekkaloon seen bop 80 personnes faatu ci seen tiaxan ñoo ñi ñep dañ leen wara atté mbirum Adji sar di ay fen di ay katch yo xam ne dañ koo fabriqué ànd kook ay mag yu ñak tiaxan te bañ seen réew muy Sénégal coow lolé tax na ñu bari faatu 2021 ba 2024 Sénégal dundul jam, lolé nak ci bopam dañ ko wara saytu xool ba xam ñan ñoo nekkoon ci coow lu rëy loolee nga xam ne moo tax Sénégal ci ñeent at yi yëpp économiquement ak socialement lépp rek dafa deltu ginnaaw mbokk yi teewlu seen chaîne préféré seen njëriñ TV ñu ànd rek seetaan vidéo bi aimé ko partagé ko ngir ñu bari ñu féete ci réewum Sénégal ak bitim réew daal di ciy mën a jot. di le dossier est vide et ça pue le complot je cite les mots parce que j'avais accès au dossier je suis avocat. <laughs> ni ñu def bi dem gendarmerie dugg ci dossier non la def man tamit dem bi dugg ci dossier blam balaa lu may dugg dama koy xam ma gis dossier bi ma ko <tsk> kii mun ngeen si condamné quand il y a doute ça ne peut profiter qu'au prévenu à l'accusé or tay lundi madame euh, dame bi lii la wax mardi li leneen la wax le contraire le doute profite à qui sur des choses assez sensibles ci xale bo xam dafa ñëw ne beneen xaritam bu jigéen génnal way baye mag waay so ragalé waa do ko bàyyi do nak seul avec mom donc il y' a pas de contrainte y' a pas de forçage et c'est un complot. ñi doon dawal auto bi pour indi xalé bi yóbbu ko yëpp xamna ñal la ci bëri ko koo mënul sax bind turam mëna rédiger une plainte pénale en visant les articles sur le viol man mi sax le droit sénégalais pour moy xol article bi dama ko ñew xolat parce que bu droit français la gëna maîtriser mu def ko loolu lépp amna ko bind ci ginnaw oui ou non non mais ñu wax na dëgg quoi il fallait rendre inéligible quelqu'un. C'est pourquoi, mm. moi je trouve que euh, ce qui s'est passé, dans une convocation d'Ousmane Sonko Raifi, plus de 20 personnes minimum, nous avons dit kenn gisu kenn mu yore fait boo qui ko jox kenn kenn ku wala ay bantat ay di manifester différentes policiers ci mbedd bi gis nga gis naa en face ñu gis ay nit yor ay pick-up banalisé ay nervi te président Macky Sall dafa ne woon nervi parce que demoon na ci kër Diaz maa ngi moom ñoo Papa en 2011. oui nervi mu fi am. oui c'est des milices moom ñu gis toog ay nervi sur <coughs> la route de Matam sur la route de Kédougou euh, kungal ñuy dóor ñi ñi ñuy dugg ci biir permanence bi ak ay pick-up yoo banalisé amul plaque. Il y a c'était la convocation d'Ousmane Sonko lorsque le jugement est tombé au mois de juin. 2023. il y a la ñu armes à feu le ñu Il ay en civil y compris le numéro 9 Il y oui te ku yore suñu sécurité c'est le président Macky nous sommes dans un régime purement présidentialiste. xale yoree xeer ñuy leen ay balles réelles nekk ñu en état de guerre na ko am sama buntu permanence lañ boobu laa teg ci kaw bi tiire jot booy xale boobu est-ce que dafa yore woon loo xam dafa dangereux. non loolu am ay gendarme disparaître. dans des conditions nébuleuses. qu'il ressemble à des jévadis. loolu am nga jël nit dindi ko nga nit entre guillemets dindi ko armée indi ko sa wet dàq Jean Baptiste parce que du tirer sur la population tek ki nga xamni ni bu ñu né un mu 18 Moussa Fall nga ni dang ko détaché indi ko ci yow bo ngay waaj dem nga ni dang koy dello à l' armée alors le n'a jamais quitté l'armée juridiquement. oui oui un gendarme c'est un militaire. oui.

ce qui s'est passé en mars 2021 ne se reproduira, pas. Vous allez voir. Vous allez voir, moi je vais me réarmer. Il s'est réarmé. j'ai parlé des armes non. oui te dit ma raison. preuve ma je parle commissaire les 5 ou 6 qui étaient devant moi à la sûreté urbaine du 19 du 11 preuve ne c'est des documents authentiques. c'est des documents authentiques à livrer au palais Lynchbint, ci destinataire deux points palais de la république du Sénégal. Sénégal li mu dund ci ay Macky Sall dot ko fàtte mukk coono ju rëy coow lu rëy ndaw ñu bari ño ñak nañ seen bakkan ci lo tegul ci benn yoon yoon nak dafa wara ci li def baral ay comme ni nga président Bassir Diomaye Diakhar Faye dor nako nga xam ne yaakaar ga ñu am ci moom du tas mukk li tax yaakaar gi ñu yaakaar ci moom ginnaaw bi ñu yaakaar yàlla du tas mukk mooy anam bi ko askanu Sénégal fale moom ci boppam dafa am lu mu daj dafa am luñ ko teg ginnaaw bi ñu tegee li leaderam mboobee di président Ousmane Sonko mi nga xam ne ci fukki fan la génn rek daal di joxañ Bassirou jomaa Diakhar fay mu nekk cinquième président du Sénégal bu ngeen fàttalikoo ci kàddu yi daw yaram yi nga xamante ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye addu woon na ko jëmale ko ci leaderam bii di Ousmane Sonko nee na fukki at ma ngay xeex ngir bëgg koo fal ngir mu nekk cinquième président du Sénégal yàlla dogalu ko ci fukki fan rek Ousmane Sonko joxoñ ko rek moom mu daal di nekk président du Sénégal moo tax bi mu ko amee comme premier ministre dootu ko yamale wala sax mosu ko yamale ak kenn waaye bëgg gi bëgg Ousmane Sonko ak jàpp gi mu ko jàpp amul kenn koo xam ne la koy seere ku dul suñu boroom moo tax moom nee na ko xoolal chaise bi ma toog ndax it yéene ba mu amoon ngir bëgg la fal nga doon cinquième président du Sénégal du dañ mukk ndax moom gor la gor googee mu doon nag sénégal yi ci boppam ci lañ ko fekk ba fal ko fal boo xam ne mosul am ci histoire politique bu Sénégal premier tour bu gaaw a gaaw boo xam ne daal di lay taxañ Benno Bokk Tas Yaakaar ñi nga xam ne ci fukki at ak ñaar yi ñu jiite réewum Sénégal lépp xar la sénégalais yëpp a jaaxle woon tiit jàppoon nañ ne Sénégal yàqu na yàqeet waaye ñëwug Bassirou Diomaye Diakhar fay président du Sénégal ak premier ministre Ousmane Sonko yaakaar yëpp dafa judduwaat donte nag am na ñoo xam ne ya ngay nekk ci ginnaaw di gas di jéem a yàq di jéem a féewale waaye nag loole ci boppam du mën a antu ndax sénégalais yi ci boppam ñoo leen fal du keneen. ku suñu borom bi nga xam ne jaareel na ko ci peuple bi yëpp jóg rek góor mag ak ndaw daal di fal président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu doon loo xam ne du betteel ci ñi nga xam ne gisoon nañ liy raam. Iram nag xamoon nañ ne ca ñag ba lay jëm ndax président Ousmane Sonko ci xol ci Sénégalais yi ci boppam duñ ko bëgg loolu. rawatina ndaw ñi nga xam ne dañoo jëloon seen bakkan tayle ko ngir Sénégal baax mag ñu ci bari ñoo xam ne ay caaxaankat lañu seen intérêt personnel rek moo taxoon ñuy xeex. moo tax nag Sénégal yi am ndam ndam loolee ci boppam mu metti lool ñu war a saytuwaat ba xam xool lan wala kan ñan ñoo nekkoon ci ginnaaw aji Sarr ñoo ñooñu ñëpp buñ leen xamee ba yoon def yoonam ñu war leen tëj nag à vie Sénégal ñoom ñoo ko yàq complot boo xam ne jur na ay bakkan yu bari te lenn rek moo waraloon ñu koy def mooy bañoon rek Ousmane Sonko nekk président du Sénégal waaye lañ doon bañ lu ko raw am na mooy président Bassirou Diomaye Diakhar fay jiite na ñëpp waaye nag ci lan ci joxañ bi nga xam ne président Ousmane Sonko joxoñ na ko.